su nekkee booy booy sax day gën a seex ngeen baamu ci biir booy yéen. waaw yow andi booy yi waaw day gën a booy day gën a moom. gën a moom booy yi day gën a moom booy yi. waaw xool yéen bu baax ñu baax ñu ngi def ñu ngi def xanaa ko de dinaa la wax danga kooku waayam allo allo. aywa maa ngi sa maa ngi sa buntu gaal génn génn. ah dëgg la yow li tey yow euh, yow da ngay ji nag seex ba da bëgg na booyal. ban seex dama xam kuy seex. xamoo kuy seex. xaw ma seex. di nga xam nga dama bëgg a taay dama lay woo sax ngay communiquer. sama téléphone dama ko doon chargé gisuma ko moo tax. gisuma ko ba mu yow tey laay di nga yow tey tey laay de. Eh, tey ngay lan yow. tey laay tey laay tey laay takk jabar. ah tey laay takk ma gën a neex si sama àdduna. waaw ah, da ngay takk jabar. damay takk. waaw ah, kon takkal. Eh, boo paree nga fay mu tuddee. gisoo kii nu mu tooy yow gisoo sa papa nu mu tooy kii nii huit mètres cinquante maa ngi ñëwaat nu mu fi taxaw maa ngi ñëw.